anniversaire c'est important <laughs> euh, donc dañuy njëkkee ak anniversaire koo xamante ni kenn la ci man elle yu suit depuis très longtemps euh, Joodo mbay mhm. ku ma xam dégg ma koy ma koy ah. ma koy tudd euh, moom militante yu ci militante yu njëkk <laughs> euh, ci militante yu njëkk yu président Pape Cheikh la président Baye <laughs> Cheikh voilà président Baye Alaaji bay Cheikh donc Joodo mbay yàgg lool ak man nag très fidèle et très loyal fëkk mosu koo yóbbu déedéet ànd ak man ca ba muy neex ànd ak man ca ba muy naxari mu ngi nii di nit ku baax ku ku ku bëri valeur. Euh, yàgg ak man ci rajo yàgg ak man ci télé moom maa ko ñor. télé yi ma ne yi ma jaar wala rajo yi ñoru ko moom man man man man maa ko intéressé bu ma jógee woon fii léegi mu bàyyi leen. moom nii la nii man. <laughs> voilà bu ma nekkee 2S mu dem 2S bu ma demee seen TV mu dem seen TV bu ma ñëwee TFM mu ñëw TFM donc dañuy ñaan souvent yàlla di ñu euh, ñu mel nii moo tax may faral di ñaan yàlla nañu yàlla bàyyeek ñu gën ci ñun très fidèle nit ku baax ku bari valeur mm-hmm. euh, donc ñu ngi koy ñaanal gudd fan c'est la part de Linguère ak soldat yu Baye Cheikh yëpp ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yónnee nga photo ak message mais ku lim juum mm-hmm. ñoom Caba Diagne euh, tubarkàlla xale yëpp ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér nee na Fatoumata Tall Euh, ñoom ñëpp ñu ngi lay ñu ngi lay ñaanal madame Diop yaayu Rasoul Jodo mbay euh, joyeux euh, anniversaire démb nii tey tamit nii te ñun loyauté la ñuy soxla man lu amul loyauté bugguma voilà waaw man lu amul loyauté moom bugguma ci dara dara dara dara donc Ajaratu Rama Jaw nee na mu ngi lay ñaanal Mami Fa Ndiaye Alimatu Ben Haj vraiment ku lim jum mais ñëpp ñëpp ñëpp jaar nañu tey Euh, yónnee message pour souhaiter la un bon anniversaire euh, naaru euh, Pa mbay ak mère Mbaye mbokk ndeyam Kumba Sira mbay ñu ngi lay ñaanal daal gudd fan rek ak wér yàlla bàyyi la ak sa boroom kër ngay jigéenu muñkat nag donc yàlla na sa jàmm yàgg jooda mbay joyeux anniversaire nit ku baax lu ma bëgg a wax ci yow xeeb mhm. mais maa ngi lay souhaiter un bon anniversaire mhm. joyeux anniversaire encore jooda mbay di nuyu tamit euh, maire Nani Seck tey la anniversaire am depuis Parcelles Assainies unité 26 moom itam ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér euh, son petit-fils Serigne Babacar depuis Italie. Euh, donc euh, maire Nani sekk depuis Parcelles Assainies unité 26 ak sëtam Serigne Babacar Seck depuis itali ñu ngi leen di ñaanal ñoom gudd fan ak wér joyeux anniversaire à Awa Mboup Euh, depuis France aw boobu ca France ñu ngi koy ñaanal moom itam gudd fan ak wér c'est de la part de ta maman ak toute la famille tes amis et tes proches moom doomu Coro Mbaar la. sama doom hmm. li may wax rek li may wax chaque jour yow ñun ñëpp xam nañu sa baax ak sa yéene ci ñëpp nag macha allah donc ñu ngi lay ñaanal bu baax gudd fan ak wér yow lu ñu wax rek dina am lu ñu fàtte man ak ñoom Ndeye Anta Ndiaye ñoom Nancy xam nga équipe bi donc ñëpp ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér. nga dundu ba mottali yéene yi nga am yëpp ci sa yaay parce que xam nañ ne bu baax boo nekkee foofu di sonn moom rek moo tax donc yal na yàlla mottali yépp sa bàjjen daba sëy ñëpp jaar nañ fi vraiment pour ñaanal la anniversaire bu neex nga gudd fan nga dund nag yàlla may la borom kër bu baax on t'embrasse très fort et on te souhaite de passer une très belle journée. mu ngoog donc moom ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire doomu Corombaar Ndiaye la ci dëkk bu ñu naan France di Awa Mboup joyeux anniversaire Adja Soufi Ndiaye euh, c'est de la part de sa maman euh, Fat Sey Ngom ak euh, papam Youssou Ndiaye depuis Italie elle est jolie on lui souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire et puis euh, joyeux anniversaire à Kalmi Ndiaye Kalmi Ndiaye nag mooy chéri Matar Diop depuis Italie ñu ngi koy souhaiter beaucoup de bonheur donc joyeux anniversaire à Kalmi euh, c'est aussi euh, de la part de euh, suma rakk bopp Mami Fa Ndiaye Diaw madame Ba euh, euh, Fara Diaw di ko souhaiter donc un bon anniversaire moom Kalmi Ndiaye chéri Matar Diop depuis Italie longue vie à elle alors des na ñu dem ci anniversaire u ki nga xamee ni mooy Coppo Diallo Coppo Coppo Coppo donc Coppo la tudd ni ma ko jotee rek laa koy lire ah c'est des messages que vous envoyez ci euh, <laughs> suñu euh, compte yi nga xam ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi donc Coppo la lire ma lire Coppo kon Coppo mi too Coppo nee nañu souhaité ko joyeux anniversaire Coppo Coppo bii nge <laughs> Coppo Coppo joyeux anniversaire euh, donc c'est un message que nous avons reçu après Coppo c'est l'anniversaire de Séni Seck euh, joyeux anniversaire de la part de tout sa famille ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér moom Séni euh, Seck joyeux anniversaire à Andoulaye Sarr depuis Cambérène c'est de la part de sa maman euh, Penda ak papam As Boy kii dama ak sama waa ji bokk sant As Boy. Mm-hmm. Mm-hmm. suivez mon regard. sang-sang booy à l'étal <coughs> sama géer gi sang-sang lu tudd donc joyeux anniversaire à euh, euh, Amdoulaye euh, Sarr joyeux anniversaire à Modilaye Mody Laye ñu ngi koy ñaanal gudd fan borom le 19 août. joyeux anniversaire à Hamza suñu euh, yaay Fall bi longue vie santé de fer de la part de toute la famille ñëpp a ngi lay ñaanal gudd fan ak wér. joyeux anniversaire à Mame Khady Diop c'est la part de Apou Diobé Apou Laye Apulaay xam nga ndereng lu nuroo xonkaay beeg tuuti waay beeg gàttaay bi nee naa ko sama morom yëpp takk na nu ba prouvé yow nga ne fii rek di jàbbante diggante Riche ak Plateau Riche Plateau Riche Plateau yow balaa ngay takk di nga doo am doole <coughs> kii nii ma koy yàqee noonu la may yàkkee ci ginnaaw Mado xam ngeen yéen xamu leen ku tooñ ku fayu ngeen xam apu lii ma ko yàq di moom par double la may yàq eh kon déggoo yi may waxal eh. li ma ko wax dafa ëpp. moo tax moom yëpp takk nañu ba prouvé. moom mu doon tuuti ngalaxtaan. régie plateau régie plateau régie plateau régie plateau. kon yow déggoo ñu ma ak di wax. nga ne Apulaay moo koy souhaité un bon anniversaire donc nee na mu ngi ñaanal euh, ki nga xam ne mooy Khady Diop c'est la part de Apulaay Niang. joyeux anniversaire à Soda Mbacké c'est de la part de Bayassane Diop Italie ak euh, ami euh, et de son père ñu ngi koy souhaité un bon anniversaire joyeux anniversaire à bébé Omar Seck. Je te souhaite une très longue vie, santé et la part de ta maman Seynabou Diouf, papa ak toute la famille. Joyeux anniversaire à MC euh, artiste comédien nekk Soleil Levant ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér donc c'est un artiste bu bokk euh, Soleil xëy na bii rek la am yàlla baax na. joyeux anniversaire à Yaay Ngoné Dramé <laughs> Yaay Ngoné Kama de la part de Koumba et de monsieur El Hadji Malick. donc yaay euh, Ngoné Dramé ñu ngi koy ñaanal moom tamit gudd fan ak wér euh, c'est de la part de Koumba Yade ak monsieur El Hadj Malick joyeux anniversaire à Jalimatou euh, déedéet Jamilatou Ndiaye je te souhaite beaucoup de bonheur de la part de Fatou Diagne ak toute la famille depuis Fass Mbao joyeux anniversaire à mon ami mon frère Djibi Modi Timera c'est de la part de Youssou mon fils Youssou sama doom la xam nga Youssou. Ah Youssou sama doomu jiitle la. doomu jiitle la du ñurub gaño doomu jiitle la. tey la àllarba wala nga bëgg ma cof ci talaata. yow kay boo leen a bés yëpp. damay maam boo leen a bés yëpp coloré <laughs> li ngi souhaité un bon anniversaire damay sax réer na communiqué yooyu bëri maa ngi mel ni Ami Ndaw bu RFM donc à mon ami Djibi euh, Modi Timéra c'est de la part de Youssou Baro mon fils joyeux anniversaire à ma grande sœur Mami Seck longue vie baax yaru euh, bëgg ñëpp ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér joyeux anniversaire à bébé Mohamed euh, Aïtiche Ndiaye longue vie à toi de la part de maman ayta ak toute la famille et puis on finit ak anniversaire bu notre chérie Diatou la femme de son homme euh, toute ta famille euh, nekk HLM Paris ainsi que tes proches ñoo lay souhaiter un bon eh anniversaire voilà donc gudd fan ak euh, wér bi passé na doomi Johnson ji waaw ni nga ko dundee laa ko dundee. pourtant man ah, may toon ci yóbbante. donc joyeux anniversaire à Serigne Saliou Mbacké mooy taawi Johnson Mbeng suñu doom la. Euh, di ko euh, ñaanal gudd fan ak wér ci barke turandoom Cheikh Saliou. Euh, donc mu baax lool. on lui souhaite beaucoup de bonheur moom bébé Serigne Saliou. on va finir cette émission 11 mooy doog a jot enchaîné dem ci beneen partie bi merci ma petite cousine Kiara Ndiaye Géwél. Merci à toi. Ouais. Ça a été un plaisir. J'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire de la part de Bayasan Diop. Bayasan Diop. Diop Ormai.